asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, nu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu dellu di leen encouragé ndax ndam li ñëw na ba noppi nu bëggoon nag def genn taxaw seetlu ci presse conférence bi nga xam ne ah, Seydina Ousmane Noureyni def na ko muy waxtaan woo xam ne euh, dafa bokk ci annales historique bu Sénégal dana ci dugg ndax élection yi euh, dafay lu mus sa am dafay loo xam nit gëmu mu amati mbaa mu gaaw a am ndax lii nga xam ne moom la doxe nga xam ne lépp baatin la lépp baati ndax ay sàmba yu taxaw bëgg salfaañe réew mi am ñu jóg ne mu nañ ba bëgg a dee waaye bi yoon dooti fi amee nga xam ne euh, ñépp a jóg takkandoo seen ndigg bokk ak kuréel bu naan tinki euh, askan wi maanaam yeewi askan wi ànd ko ak wàllu yàlla dogal na ndam li yéen ñëpp ko gis ginnaaw ba Macky Sall sàcce sàcce sàcc ba géex ba géex teewul la sunu borom namm moo am maanaam majorité bi mu ngi nekk ci opposition bi kon le contrôle de l'Assemblée nationale naturellement naturellement c'est l'opposition qui a le contrôle Ousmane nag nit la koo xam ne boo amul diine doo ko mën a dégg boo amut xam-xam ñaare doo ko mën a dégg boo góorewul góorewul doo ko mën a dégg waaye bu ànd ku dal ànd ku gëm yàlla doon ku dëggu Ousmane buy wax lépp day leer nañ fi yow nañ presse conférence bi am na solo ndax ni nga xam ne Macky Sall def na ko di jënd nit ñi Ousmane leeral na ko te da ko wax rekk waaye ñëpp a ko xam ñun ñëpp noo ko xamandoo ndax yàlla moo ci def loxoom ubbeendoo xel yi ñu bokk tureendoo Macky Sall euh, Ousmane it am ju am solo comme yaa ñëw ni ci opposition yi nga bokk euh, opposition yi dem ba gañe c'est pas à lui moo lay woo naan kaay kaay leen ak di seeti ak waxtaan comme yéen a bokkoon opposition bi ba ndam am ànd leen ngeen dajaloo waxtaan waaye comme noonu ko Pape Diop defe noonu ko ñeneen nar a defe du yëfi ngoro waaye Ousmane dafa dal wéeru ci yàlla sukkandiku ci alxuraan ak addis te rek jox ci sénégalais yépp li jox ci senegal yi dégg ngeen ko bi ko fi Macky Sall yi tëkku ginnaaw ba mu gëmee yàlla ak yonent bi gëm dund ak dee gëm diineem islam Ousmane dafa ne sama jëmm ji sama jëmm ji yéen dénk naa leen ko yéen waa senegal kon nun waa Sénégal lépp loo xam ne Ousmane koy wax dafay mel ni daan traducteur automatique boo xam ne moo koy leeral suñu bopp yi Ousmane wax dëgg la du seeti kenn du fekk kenn naan ko dikkal yéen a tànnoon opposition bi nekk ci gañe xanaa kay du ngeen war opposition bi xanaa du ngeen war Sénégal yi nga xam ne ñoo ànd yéen wooteel leen ngir contre Macky Sall ah dama nii Pape Diop def nii Pape Diop def bu fekkoon ne dans un pays de droit lañ nekk waa parti am nañ droit porter ko parce que amul droit fekk Macky Sall teewul benn document boo xam ne ci parti bi lay jóge du xëy jël say bagaas dem ne ci Macky laa bokk léegi loolu dafa yomb waaye ñun loolu ñoruñu ndax mbir moo xam ne yàllaa koy lijjanti bokkut ak mbir moo xam ne Pape Diop ak Macky Sall la koy lijjanti waaw Ousmane kon gëm yàlla googu delloo si na ko kóllëre googu delloo si na ko te Ousmane wax li jëme ci suuf si nga xam ne noo ko moom ñu di ko sàcc te loolu it xam nañ ko daanaka Ousmane lu sox luñ xam la waaw building yeeg kër yeeg terrain yeeg suuf yi nga xam dañ koo sàcc aaki moo ko Ousmane xam na ñan la ak ñan a ko doon def te tous les responsables daay ñëw wuy si Ousmane dem na ba ci ñi nga xam ne moom la Macky Sall sukkandiku di toroxal askan bi ak di tëj ak tijjee ak dóor ak damm ak duma lu mel ne police bi gis ngeen ko avec son ministre de l'intérieur nga xam ne kaso bépp def ko ay victime ak i innocent ah ñu ci magistrature bi gis nga ko ñoom ñëpp Macky Sall képp la ñuy liggéey banque ci gendarmerie bi nga xam ne mu ngi ne ci contrôle lu Macky Sall Macky Sall Ousmane dana ba tuddit ñoo ñuy jiiñ ay terroriste te yàlla xam na ne xamuñu terroriste Ousmane dañ bëgg a taqal ku ci mel ne François Mancabou nga xam ne dañ ko torturer dóor ko ba mu dee parce que dañoo bëgg mu taqal Ousmane mu lànk ne di ko def te du moom dong de du moom dong ba nëgën yi gi torturer ay nit bëgg ñu taqal Ousmane pour mu am lu ko taqal pour jàpp ko waaye li Ousmane waxe fi ne bu soobee yàlla day dend ca gëm yàlla ga bu soobee yàlla delluwaat ci gëm yàlla ga danaa doon bëgg naa doon candidat ci élection présidentielle yi ñëw bëgg naa gi nag parti mooy investir te bu suñu parti investir ko waaye ginnaaw loolu bu soobee yàlla Macky Sall mënu koo tëq mënu koo teq mënulu ko dara kon bu mu dégloo discours bi taataan ko discipline la indi encore maanaam assemblée nationale nañ fi dugal ay projet viable peut-être sax bala ñu dem assemblée nationale waxuma ne député yi waaye ñu leen ëpp ëpp leen xam-xam yi ci biti ànd ak ñoom di gëstu maanaam lama ma leen doon rek ay clinique politique yoo xam ne ñooy gëstu lépp transmettre ko député yi depuis dugal ko assemblée nationale loolu Ousmane a ngi ci Ousmane aussi wane ne ne fan yëpp ak jamono yëpp mi ngi liggéey ci assemblée nationale mu nuy toogee ni ñu waxe ni ñuy ànde maanaam ban stratégie yooyu Ousmane mi ngi ci wax na leen ne mi ngi ci maanaam mbir mi dafa yaatu dafa yaatu lool lool lool lool ndax Ousmane kàddoom bu ne wala bu ne ak bëyitam bu ne rek la bëyit bu ne téere la bëyit téere la waaw tax na parfois ni ñu koy déggee ak na kii di déggee du demee noona waaye bu ne tekk rek day mel dañoo bokk potom ndox naana ndocca kenn ko ne ak na ngay mandé rek na ngay mandé noonu la ñëw ne aussi wax ci Macky Sall dérapage yi nga xam ne moom la dëkkee di ko def waaw ku mu neex nga bokk ci élection ku mu neex dàq ku mu neex doo bokk di tànni ay itam di dóor ak di damm loolu lépp wax nañ ko ci ko Ousmane wax na itam ba ne moom kenn du ko sàkkal ay xel waaw waxagul ak benn président demul Russie demul fenn waaye nag Macky taxul de heure bu amee occasion wax ak président Poutine dana wax ak moom waaw président Guinée yi wax na ak ñoom waaw te félicité na président bu Mali bi félicité na la révolution malienne te tàllal na leen loxo te ni mu waxee ni mu waxee bu dee bu jël réew mi jot réew mi ah ba ñu te liggéey ñoom te Ousmane di ci ëpp solo mooy unité africaine li ci ëpp solo maanaam ànd gi Afrique war a ànd loolu Ousmane wax na ci ubbi na ci bopp yi kon daal euh, c'est un discours complet discours boo xam ne mën na sëkk sëkk sëkk sëkk te di ci ëpp solo mu di ci delsi mooy assemblée nationale bii assemblée nationale bi waaye Ousmane li mu waxit lu am sol la am na encadrement maanaam ay coach ay coach yoo xam ne ñu ngi ci bitti ñoo fas yéene coach député ñu defar seeni kocc waaw explosion nag mënta ñàkk ci côté Macky Sall ndax heure bi bu Macky Sall tànnee premier ministre dana problème dana problème beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne PS lañ bokk d'accord ñu Macky am troisième mandat ñu nekk AFP aussi am nañ le même problème kon opposition bi bu tàllee loxoom dana bari ci ñu jot dana bari ci ñu jot ndax un troisième mandat moom dama ne waa APR genn wàllu APR ñu ci bëri sax dañ koy làng kon Macky yow buudi tureel Macky dara mënu koo tee jaaxaan dara te ana li koy jaaxaan dafa jaaxaan te saw ci kawam noonu li Macky Sall def waaw noonu li Macky Sall def ñun nag ñi nga xam ne ay Sénégalais lañ gën a discipliné continuer lañ daan def saaga yooyu ñu waa Benno Bokk Yaakaar daan saaga saaga yi jeex na dama ne ay mag ñu jaaxaan lañ di coral ci seen kaw ñun activistes yi aussi Ousmane gërëm nañu tous les patriotes sénégalais yi fi nekk Ousmane gërëm na leen Ousmane dem na ba ne militants yi patriotes yi ñoo leen ëpp te muy dëgg wér peng dëgg wér peng waaw wax ni ci quatre-vingt-douze yi nga xam ne am nañ ko ci ay chaise buñ ko xeeb ndax mu njëkk moom doo nga fa nekkoon di rayante tey mu ne am quatre-vingt et quelques députés par opposition majoritaire am naa yaakaar ne buntu mën naa génn buntu mën naa te bi nga xam ne nag am na APR dara mënu koo tee bañ a am scandale te scandale bu tojee bu tojee màq waxee daw lay def Ousmane dellu na aussi ne pour ñu waajal présidentielle ndax lis bariwul diir bu gàtt la waaw ba tax nag yëpp mënoon na jóg dans l' ensemble et l'unité ko ba nga xam ne Macky Sall ci boppam du am 10 pour cent waaw Macky du am 10 pour cent waaw ci kaw nag ñu jóg ñun ñëpp jëli suñuy carte ci kaw ñun ñëpp ñu jóg di ko waxtaane ci kaw ñun ñëpp ñu jóg dugg ci àll bi ah, waxtaan ak nit ñi luwaat seeni bopp ba erreur boo xam defoon nañ ko rek duñ ko rek ci présidentielle am na temps am nañ temps ndax seize mois dafa bari seize mois yooyu tey buñ ko toogee ah liggéey ci liggéey bu jaaru defe naa ne lu ci dégg mën nañ koo sempi mën nañ koo sempi ndax Ousmane ñu ngi lay gërëm di sant les ressources minières wax nga ci wax ju am solo te li liñ ci waxit def naa ni yëpp ñoo ko bokk tënk jàppandoo ko Ousmane wax na ci yu bare bare bare bari ah. wax na ci yu bare bare bare bari loo xam ne ah képp ku dib Sénégalais nangu nga ko te nangul nga ko ko te xam nga ko kon maa ngi jégalu bu baax a baax a baax di leen ziara euh, man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yaram yi xaw sutaate rek ne kon dana wax ba mu gën gudd ndax li ma jëg wax bari na waaye alhamdulilahi rabil alamin jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf baa ngeen baal ma wax ne ci hôpital bi nga xam ne la daan teg nga dem Macky da koo jaay euh, wax na ci euh, lu sa hôpital nga di ko jaay loolu Macky sàll képp moo ko ñemee ci àdduna bi waaw Ousmane wax na itam ci yeneen ay kër yoo xam ne euh, hôpital bi paj mee tax mu siiw mais am na yoo xam ne si état bee ko moom ah Macky jaay na ko bu yàgg yi kër yi mu luye ko location ay quatre-vingt-dix-neuf ans loolu wax na ci violation boobu ñu yor wax na ci te Ousmane tëkku na ñi nga xam ne ñoo jël alal réew mi te jaaruñ ko ci yoon waaw képp ku jënd wala nga luye ko te ci yoon perte képp ku ne ci état bi nekk jaay ko jël alal ji ci sa poste da nga ko génne wala ci kaso bi day dee Ousmane daal discours bi mat na euh, suñ xol sedd na ñu deel di ko gërëm di ko sant dem yaakaar ci moom te ku dib sénégalais na nga bàyyi la nga jàppoon dikk jàpp ci coalition bi nga xam ne mooy yeewi ak wallu pour lu bokk am ndam yaatal ndam li réew ma a del ci suñu loxo kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences peace and